la ñun ñëpp dinañ si jëriñu waaye naka leen see jëriñoo mooy ni ma leen ko def di waxee rek ñun ñëpp nañ ànda booloo su ko defee li nga xam ne ñun moom lañ ci bugga ñun ñëpp ñu mun ko see am mooy togga ko ci togga boo xam ne nii yéen ñëpp di ngeen ci kontaan lool muy lan ni ma leen ko waxee rek soo leen bàyyee xel gis ngeen ne bi nga xamee ne jël nañ li nga xam ne mooy jën bi fuli der bi bàyyi ngeen xel ne biñ ko walee ba pare dañ jël li nga xam ne mooy sipa-sipa bi moom lañ ko ñaagal sipa-sipa bi nag soo gisee ñu def ko loolu wax naa leen ne jeeg bu nekk dafa am feemam feem bi nga xam ne ni moom laa def saa su nekk gis ngeen tey jeeg ñi ñu génnee loolu rek moo laa wan ne ñun saa su nekk rek suñ fi am foo leen toll si ñun ba tax na ñun itam dañ am fuñ toll si ñun waaye nag fi mu nekk nii mun ngeen a dugg ci bi ngeen call ci 4373 905 bu te ngeen dal di def rek 00220 437 3910 ba tax na nag fi mu nekk nii ubbi nañ line si képp koo xam ne bëgg naa bokk ci programme bi rek mun ngaa call su ko defee rek nga wax ñu yow naka nga gisee tey tooga bi nga xam ne ni moom la ndey caam tooga su ko defee ñun ñëpp ñu ànda faram-fàcce ko ci anam bi nga xam ne ñun ñëpp moo ñu gënal waaye tey ndey caam dafa def lu nice ma di ko ci kontaan lool jamono ji am ah, fu mun ti nekk ñu ngi ko bëggee lool lool lool mu toogal ñu tooga boo xam ne dëgg dëgg ñun ñëpp kontaanoon nañ ci te it gis nañ ci njëriñ bi nga xam ne ni ñun ñëpp moom lañ bëggoon muy li nga xam ne ni mooy jeeg bu nekk ak feemam ak fan laa génnee waaye li ci gën a tee am solo mooy ni ma leen ko dee faral di waxee mooy ne géej ñi saa su nekkal ni ma leen ko dee faral di waxee ñëw leen ñun ñoo leen di jox suñ dépasse waaye lépp rek li ñu leen di ñaan rek mooy ne ekkati leen seen téléphone yi ne ngeen bokk ci programme bi ngeen call ñu ci 9933263 9933263 soo ma ci callee di nga ma am ba tax na ah, saa su nekk ba ma callee rek dinaa la ñëw jël sa nomba fekkale ba foo mun ci nekk yoo tooga gi defal la li nga xam ne yow moom nga bëgg ndax indu moom dina neex lool ba tax na day am mbégte ak pour dem seen kër yi ànd ak yéen marché indul leen ci bi nga xam ne yéen ñëpp daf leen di jëriñu ma dal di jël moom ci laay nuyu ko naan ko hello asalaamaaleykum hello hello asalaamaaleykum and dafa mel ni kooku am dem na bi tax rek ni ma ko waxee eggati leen téléphone yi rek call ci 4373905 bi tey yéen ñu nekk bitim réew rek ngeen daal di def bi am um, fi ma dafa am solo lool wax naa leen ñi saa su dama leen di jàppale ci biir waañ bi naka laa leen di jàppale loolu tamit dafa am solo lool wax naa lu waañ bi tàng-tàng foog ma ànd yéen ci biir waañ bi fekkante yéen ci jàppante yéen ci naka di jàppa ak yéen ci bi yéen ngeen ma yéen li nga da ngeen madam bi jël foofu nuyu ko naan allo allo asalaamaaleykum waaleykum salaam allo maam naam sa kanam bi rafet na jërëjëf show bi nag dama si bég waaw bulet bi nag moo si gën a neex bulet bi de dama bëgg nga toogoo ko ba nice nah, daa ko defal ba mu baax defal loolu dina mu ne neex nah, waaye yow lan nga si gën a jàngatee ci tooga bi. jàng naa si bulet bi. waaw. te mhm. pare ni mu toogee suuf bi nag. waaw ni mu toogee suuf bi dafa sublissé. Mhm. te baax. Mhm. te xam naa ne dina saf. saf moom saf na. waaw waaw. <laughs> saf moom saf na. <laughs> ok alright ndeysaan di bëggee kooku noonu bu baax a baax a baax di leen ñaanal fan ak wér yéen ñi nga xam ne jamono ji da ngeen di toog seen kër di ñu seetaan mosa ma ne leen ëllëg ajuma ji incha allah nag am naa ne ajuma ji moom ñu bari dañ di faral di toog a mbaxali gerte waaye man man na leen déedéet bu kenn dal di def mbaxali gerte nañ toog a bu saf war naa leen jamono ji kobo bari na lool ndax ku am kobo dal di ko jël def ko ni ko war a defee gis naa leen liñ ci bëgg a di ko ci am waaye saa su nekk rek gis ngeen ni lii mu ngi leen wone rek li suufi rooba bi nag roba bu nice ñu bëggee ko nga xam ne mooy Eb Jeng bu baax a baax a moom mi nga xam ne wax naa leen ne mu ne jamono ji wax sa xew te it ci jamono wax seen toolu jeeg ñi yëpp ne lañ dugg ci wax te dinañu neex lool moom mu ne euh, jàppale bu baax a baax a baax fii ci Gambia Radio and Television Services waaye a mooy amal keneen ku nekk ci line bi am ñu jël ko nuyu ko naan ko hello asalaamaaleykum hello hello maam naam naam bég naa si programme bi lool. jërëjëf jërëjëf. si booli cuulaa toog nii waaye suma biir bi fees na. dëgg la. fu mu ne nii doy na si suma la la. so cuu bi daal su ma si amee si bulet bi rek maa ngi kuul. waaw waaw mun naa laa si bulet bi de waaye soo ŋaaŋee rek mel na ni mel na ni rek mos nga si cuu bi. fu mu toll nii maa ngi ŋaaŋ. waaw man jox naa la benn bi. yeah. jërëjëf ndeysaan di bëggee suñ càmmiñ yooyu noonu bu baax a baax a baax ñoom ñi nga xam ne ñoo ñoo seetaan ñoom itamit di def seen quota ci programme bi am ni ma nañ ko def faral di waxee rek yéen dafa am foo leen toll suñun ba tax na ñun itam fi ngeen toll suñun suñ ko mënoon dañoo def lu ëppali ngeen ñi nga xam ne foofu ngeen toll suñun waaye ni ñoo faral di def rek mooy saa nekk di leen indil yéen li nga xam ne da ngeen see jëriñu saa nekk moo tax ma ne leen réewi Gambie ñun dañoo am mbégte ak kontante saa nekk suñ fi toogee ba tax na ni ma leen ko def faral di waxee ñun ñooy bëtu réew mi waaye tamit ñun ñooy noppi réew mi ba pare yéen da ngeen di jëriñ jëriñu si ñun ñun itam ñu jëriñu si yéen ba na saas nekk suñ fi toogee dañoo daal def ba mbaax waaye naka lañ ñu defee ba mbaax jeeg ñi ni ma leen ko waxee ñëw leen ngeen génnaa seeni feem gis ngeen tey fan lañ dee caam génnee daal dina ñu li nga xam ne nii nag mooy cuwi bulet bu bokkut façon bokkut façon gi mooy li nga xam ne nii daal dina jël li nga xam ne ni ah mooy sipa sipa bi daal ko ci def waaye xoolal leen ma laaj ah, laaj ah, bi nga xam ne moom laa wol fi mu nekk nii daal wol nag li nga xam ne mooy kaani gu sew gi daal di nag gis ngeen nag fi mu nekk sipa ñàngaan yi nga xam ne ñoo nekk ci sipa sipa bi yëpp waaye gis ngeen ne fi mu nekk ni jën bi raxas na ko tamit moom itamit ba mu set fi mu ni moom la ko génnee li nga xam ne mooy dooleem dal di si ni li ko bàyyee xel mu di ko wol bu ko li nga xam ne mooy jaba jàmboo bi bàyyi ngeen xel ne fi mu laa wol su pare nag lan laa def fi mu ni dal di jël li nga xam ne nii nag ah, mooy dogiti bulet ram yi li nga xam ne mooy dogiti jën yi di leen dog dog dog dog dog dog yi mu leen di dog nii pour nga xam ne dina neexawal ci gën a gi moo tax mu di leen def nii gis ngeen fi mu nekk nii liñoŋ bi mu ngi koo dog into dice gis ngeen la nga xam ne moom la wol fi mu nekk nii ah, moom laa yekka nag nanka nanka di def ci lépp loo xam ne moom la ci bugga bàyyi ngeen ko xel gis ngeen mu ngi koo sàjja nag si sàjja bi nga xam ne nii ñun ñëpp dinañu nee su paree na sànni ci tuuti xorom wax naa leen ne togga balaa ne am xorom ñu defal ko safal ko ba mu saf gis ngeen na fi mu nekk nii nag mu cee jël lii nga xam ne mooy mburu mu woow mi pour def ko fa mburu mu woow mi tamit lii am na ci solo lool ba mu ko xoojee ba pare dal di ko bàyyi na ba funki mu am def ko ci li nga xam ne mooy ci buletam bi gis ngeen nag fi mu nekk nii bulet baa nekk nii soo ko bàyyee xel wal nañ ko bem nooy léegi ni ñoo def rek mooy pour pare nag euh, jël li nga xam ne ni euh, mooy diwlin bi moom ngeen bàyyi xel ni ñu di ko ci sotti suñ paree nag dal di nga ñaawee li nga xam ne ni euh, mooy sipa sipa bi dal di ko dankaale ak li nga xam ne ni mooy bulet bi am na keneen ku nekk ci line bi ñu jël ko nuyu ko suñ jee paree ñu jekkaliwaat fiñ toll nii hello asalaamaaleykum hello naam hello hello maam. am um, technicien su nekkee yéen ak ñoo dégg ngeen yokkal ñu volume bi tuuti hello asalaamaaleykum. waaleykum salaam allo. waaw laa dégg ah. maam naa def. jaama rek Gambia. ñu fi rek defuñ dara alhamdulilah. wallaay sa tooga bi def ma nee na. dégg la fooy I call Nigeria. Nigeria. waaw. ana Nigeria mbaa defu leen dara foofu. non non non defuñ dara. waaw loolu dégg la kay dégg la. na nga ne tooga bi yow nag lan nga si jànga ak man suma jabari. li lay toog toog ñu seetaan. waaw dégg la. wallaay dañoo tic tic fii non. jabar Gambian la. yes Gambian ah, moom su paree mu dem marché rek mu la ko fooguloo ko. waaw waaw waaw loolu ah. mu mu ma mu ah, na. waaw waaw waaw naka Gambia nag. Gambia ñu ngi fi rek si jaama defuñ dara alhamdulilah. alhamdulilah ma lay nuyu ma lay nuyu Gambian ñun tam ñu laa seet bu baax a baax di leen ñaanal jaama yéen fi ngeen nekk noonu. amiin maam amiin maam waaw. Mhm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. di bëggee suñ koola boobu noonu ndeysaan di koolee ba Nigeria ñu di ko bëggee bu baax a baax a baax moom ak njabootam gi yëpp am am naa na ki mooy nekk sama mujjanteeli koola bi nga xam naa tey dama leet lool ma dal di jëlaat kooku noonu ci line bi hello asalaamaaleykum hello hello hello hello asalaamaaleykum maam Dieng naam na nga